ci turu handicapé yoy yeb nak madame le ministre ndey Saly job ñi ngi lay gërëmaat parce que li nga def ni du gulet yag nga jappalé ñi néew doolé yag nga jappalé handicapé yag nga jappalé tamit jigen ndax lu jitu ngay nek ministre c'est important lolu lu jitu ngay nek ministre jigéen ñi handicapé yi xewle nañ 8 mars booba nekkoo ministre moo woo wax la ko ne la dañ la bëgg a def marraine nga ñëw jàppale leen jàppale boo xam ne ñëpp fekkee nañ ko bu rëy ba boole ci billet màkk waaw booba nekkagul ministre de bi muy yóbbu handicapé màkk booba moom nekkagul ministre kon lii bu nekkee ministre def ko ñun du ñu jaaxal parce que xam nañ ko ci moom ba nga ko defee tamit laa la ne dimbali nga nag ay néew doole dimbali nga nag ñoo xam ni ay waa yàlla lañ leen di wooyee te ñooñu kat boo seralee seen xol ñu la ñaanalee seen ñaan mooy ba ko defee tamit ñu ñaanal la teguñu si ñaari weer da nga nekk ministre te it bu soobee yàlla dinañ la ñaanalaat dolliwaat nga nekkaat leneen lu gën a foor lii

mënuñu développer réew mi wala ñu yóbbu réew mi ci kanam fegg lim bu ci population bi donc foog li ñuy def li wax politique publique programme yi initiative publique yi toutes les initiatives de développement forcément dafa war nekk des initiatives inclusives maanaam warul bàyyi kenn ci ginnaaw surtout warul Baye, handicapé bi. dans le cadre de la lutte contre le Covid 19 présent de façon inclusive fexe na ba boole kenn askan bu nek rek ko ñu xol le programme de résilience économique et sociale couche yëpp lañ ci laal. def na mon frère wax na collègue. Je defe naa rek renforcer waat na ce ce programme pour que ci ñi nga déjà les acteurs du transport dougal ci les acteurs culturels mais dougal ci aussi renforcer waat yokkat encore l'appui en denrées alimentaires d'urgence